mun non loolu aussi xam nga ci tontu kenn amul luñ ci mën a teg ci loxo au moins nga ne ñu programme bi mi ngi ci loxo diw fii la toll lii lañ ci def nangam ñu mën mu nekk lu concret. dama bëgg wax mooy am na benn société bu ñuy wax cubic trafic weer. ok loolu sax mën nañ ko dégg. leer na nañ. xam ni mi ngi def offre maanaam pour euh, organiser les feux de au niveau de Dakar. Mhm. processus la processus boobu ñu ngi ci te bu neex yàlla. processus dana dana dana dana yegg. camion yi gu guddeeg bëccëg ñuy daw est-ce que loolu mooy mooy mooy mooy norme bi. guddi ak est-ce que amuloon organisation buñ ci prévoir nu ñu war ko doxal. non non xam nga à un moment même avec les syndicalistes doon nañu waxtaan pour que ñu mën a organiser les heures de transport. Mmh. bon à un moment wax nañ les bus ñu xool est-ce que bus yi par exemple mën nañu doo guddi. wala ñëw bëccëg déggoo guñ ci. mais daañu ci waxtaan parce que tout prochainement dana am un conseil interministériel boo xam ne premier ministre dana ko organiser pour ñu toog ak les acteurs mhm. de la même manière les camions. yan heure lay camion yi du jóg ak ban heure la yan heure lay camion yi du taxaw. loolu aussi baax na. loolu yëpp euh, d'ici la semaine prochaine je pense ah j'attends que premier ministre wax ñu ban date la fixé pour ñu waar les acteurs ñu ñëw toog ñu teg lépp ci table bi waxtaan. ok dana concerner les transport des camions. Mm-hmm. dana concerner le transport interurbain avec les bus na lépp loo xam ne dafa lal ci transport. Mhm. dañu toog waxtaan ci tënk ko bu noppi. d'accord mettre ko en application. amul dem dellu ginnaaw dañ koy mettre en application. d'accord alors ku ne xam na ni par exemple transport du tali rek euh, transport raay yi ci la bokk ak yooyu euh, euh, par exemple tey ñi ngi doon wax Dakar Bamako fan la toll c'est important euh, grand train du Sénégal itam war nañu xam fan la toll. Euh, ñaar yooyu dafa nekk yoo xam ne yu am solo la mhm. waxuma sax ci ci ci ci transport bi ci communication bi dem bi ak dikk bi mhm. mais bari na lu mën a lu mën a indiwaat ci côté développement ak yeneen mais loolu fan la boo fan la tollu waaw xam nga dafa am ñaari société mhm. yoo xam ni dañoo bokk ci wàllam le réseau ferroviaire bu ma ci dindee SENTER bi nga xam ni moo amee euh, le TER am na les grands trains du Sénégal ok nga xam ni moo hérité lu ñuy wax dakaar le comment dirais-je le petit train bleu. Mhm. doon dem jóge dakaar Thiès Thiawane Mekhe et cetera mais aussi aller chemin de fer du Sénégal bi nga xam ne moom mooy patrimoine bi. Mhm. alors chemin de fer dañu am le projet defaraat le Dakar Bamako. Mhm. en deux phases projet aussi yàgg na de boobu. waaw mais xam nga dafa nekkoon lu compliqué. mais financement bi disponible na wala pas encore. waaw non c'est financement état bi dana financer. waaw. à hauteur de dix neuf milliards environ. Mhm. maanaam fukki milliards ak juróom-ñeent. ñu defaraat le rail diggante Dakar ba Tamba. Mhm. tàmbali woon nañ def désherbage bi. fan la toll mais j'avoue que dafa yéex. parce que ay procédure la. dafa yéex j'avoue dafa yéex waaw loolu yéex na kooku moom nangu nañu li yéex na te daañu fexe en tout cas les ñu jëloon Afrique du Sud ñu ngi fi mhm. defaraat maanaam raay moo des parce que raay dafa am par endroit yoo xam ni dafa yàqu. il faut ñu ko. Mhm. mais peut-être voilà dañ ko tàmbali nu mu gën a gaaw parce que maanaam même les opérations de désherbage defoon nañ ko. mais yéex na mhm. kooku j'avoue que ni. Mhm. yéex na mais ginnaaw projet bu dafa am beneen projet bu rëy boo xam ni signé woon nañu MOU ak ay canadiens. mooy maanaam ñu def de Dakar Bamako d'abord Dakar Tamba en écartement standard en deux voies avec de canadiens. un projet qui va coûter plus de 3 milliards de dollars. D'accord. Assez important. OK. Alors,